Bienvenue sur Salam Vision. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا Thank

yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy gërëm Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal borom Touba Serigne Mountakha Mbacké ibnu Serigne Bassirou sun borom gën ko fee yàggal lool damay ko wér waaye naka noonu lañ koy ñaanale Serigne Moustapha Fall am di Modou Mbend xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na leen fi yàlla yàggal te may leen ak wér naal yi ñu naalal lislaam yëpp yeggale ko ba naal yeneen te lépp ñu ànd kook ñoom bi barakat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barkeb Serigne mu mel ni dañuy santaat yàlla bu baax ci tawfeex gi nu sunu borom defal ñu fekkewaat bis bu tedd bii di journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla dogal ñu koy defee fii ci Parcelles Assainies kër Cheikh Mouhamadul Mourtada góor yàlla saa yu ñu korité ba bis bi dellu si ñuy def bés boo xamante ne bii journée mondiale lañ koy tuddee maanaam bés boo xam ne dañu bëgg ñëpp sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ni ko yàlla sunu borom sante waaye ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sante waaye ni ko mag yu baax ñi kilifa yu baax yëpp sante ñun ñi nga xam ne ay taalibeem la ñuy sant Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul te am yéene ñëpp ànd koog ñoom loolu rek ay sababu bis bi ñu ngi ciy woo bépp jullit bépp taalibe ñoo ngi départ nii kër Cheikh Mouhamadou Mourtala waaye ñi ngi jëm kër Cheikh Mouhamadou Fadal fële ca Padoa fa la ñuy teer yi buñ demee ci njiital seen Modou Mamoun Mbacké ci la dalal bu ko defee ñu def bis bi nga xamante ne bii mooy cérémonie bi waxtaane ci thème bi bu ko defee tamit nit ñi nga xam ne ña nga fay teew ñu soññante ak ñoom bu ko defee wax ak ñoom ci bis bi kon nag dañuy jox sëñ Fallou rek bu ko defee mu moom it mu jottali ci ay kàddu bisimilah Cheikh Amadou Fallou Fall. ok jërëjëf jërëjëf Serigne Isma Diop ñu ngi lay ziara bu baax di ziara mbokk taalibe yi xam naa incha allah kon ni nga ko waxee rek ñu fas yéene ko àndee noonu euh, tàmbalee ko fii ci Serigne ci mbaaru kër Serigne Mourtada Mbacke. fas yéene yegg ba fii di mbaaru Serigne Fallou te incha allah ñu ngi ko ànd ak mbokk taalibe yëpp kon nag ñi ngi sant ñëpp di leen jox rendez-vous ci kanam incha allah ci kër Serigne ci mbaarum Faddu ak jërëjëf jërëjëf baax na kon mu de ba ci kanam incha allah yal na yàlla defal ñëpp jàmm sëñ bi daa mel ni yaa ngi ci dox bi waa ñu ngi jërëjëf jërëjëf sëñ bi waa rek sant sëñ bi jaajëf Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di nuyu di siyaar kilifa jataay bi sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbacké Falilou yàlla na fi yàgg lool te ànd wér di xam ne moom ñuy toog mooy jëwriñu liggéey bi lépp dañ koo jël teg ci loxoom mooy li may faral di wax rek saa su ne nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd wér ndax moom du dox ci ay caaxaan te lu ñu mel muy journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba ñu gis ko ci xel day rafet kon Mbàkke ñu ngi lay dalal di la tatagal dina ñaanal suñu borom may la li nga bëgg a liggéey ci yoon bi lépp jàppale incha allah waaye ñu ngi nuyu di siyaar mbooleem xam ne nii teew nañ ci bés bi ci kilifa yi waaye dañ jël nuyoo bi rek teg ko ci loxol sëriñ bi mu wasaaru ko incha allah ndax dafa mel ni temps bi dafa xat te euh, toogaay bi yàgg na dox bi yàgg na di santaat suñu borom bu baax. di julli ci Seydina Mouhamed di sant yàlla bu baax a baax bu ñu may ñu fekke waat onzième édition journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëfe Serigne Touba seriñ Serigne Touba jërëjëfe seriñ Touba kon dañuy tàmbali liggéey bi liggéey bi nag xam ngeen ne ni ko daan defee rek lañ koy defee incha allah euh, bu ñu santee xalifa général kullu murid day day day day mate fépp tàmbali gi nag nii lañ koy tàmbali xam nga ne suñu Tuubaa boo bëggoon alxuraan kon alxuraanu karim lañ koy tàmbali incha allah oustaz Serigne Fall Ndiaye bisimilah. bismillahi فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا صدق الله العظيم amiin di ko daan ko defee rek lañ koy defee incha allah dinañ amal ñeenti discours yoo xam ne dañ koy amal si ay différents langues bi ci njëkk mooy mooy arabe français espagnol ak anglais incha allah bu loolu weesoo dinañ jox imam sëriñ Mouhamadou Lamine Sow moom moo fas yéene wax ci li nga xam ne mooy thème bis moom mooy def exposé bi incha allah bu loolu weesoo ñu jébbal nag kàddu gi ku tedd gi sëñ Modou Mame Mbacké Falilou mu ñaax ñu delloosiwaat ñu ak cant mbooloo mi ak lépp li ci ajur rek incha allah kon sëñ Fallou mooy mi nga xam ne moo ubbee alxuraan sax moom mooy def discours discours arabe incha allah. aoudu billahi min acheytan arrajim bismillahi rahmani rahim بمناسبة الاحتفال التاسع لليوم العالمي للشيخ أحمد بامبا رضي الله تعالى نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تنفت ذي العرش المجيد الفعال لما يريد ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نجدد الشكر لشيخنا الشيخ أحمد بامبا بهذه المناسبة ونطلب من جميع المحاضرين والمحاضرات تكرار هذه الألفاظ الآتية بألسنتهم ثلاث مرات jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaarama maam Cheikh Ibrahima Fall كما نجدد الشكر للشيخ محمد مامون بكي ابن الشيخ محمد فاضل بكي بهذه الخدمة المباركة التي نقتفي من ثمارها كتاب موضوع بمقتضاه الأسرة أساسية لمجتمع متماسك ومتوازن دراسة تطبيقية في سياق حركة الشذوذ الجنسي والمثليين ما هي الحلول التي اقترحها الشريعة الإسلامية وموقف الشيخ الخديم في ذلك مما لا شك فيه أن للأسرة أهمية كبيرة ومكانة عالية في الإسلام وإن سنة الله عز وجل في الخلق اقتضت أن يكون قائما على الزوجية فخلق الله سبحانه وتعالى من كل شيء زوجين قال تعالى في سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون كما أودع عز وجل ميلا قطريا بين زوجي كل جنس فكل ذكر يميل إلى أنثاه فكل ذكر يميل إلى أنثاه والعكس wa kadalika takathur almaxluqat wa istimraru alxayaa wa lamma kaana alinsanu mukarraman mufadala wa lamma kaana alinsanu mukarraman mufadalan inda alxaaliqi azza wa jal ala kathirin mimman xalaq faqad jacala taxqiqu hada almayli an tariqi alziwaji alsharciyi faqat wa lihada xalaqa allahu aadama alayhi salaam wa xalaqa minhu xawaa قال تعالى في سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فالأسرة هي الخلية الأولى في جسم المجتمع وهي المجتمع الصغير لأن المجتمع الكبير مكون من مجموعة أسر وتشهد المجتمعات قاطبة تحديات كثيرة وعديدة تواجه الأسرة ومنها حركة الشذوذ الجنسي والمثلين التي قال الله عز وجل في حقها في محكم تنزيله في سورة الشعراء أتأتون الذكران من العالمين سورة الشعراء آية 165 والآية وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون سورة الشعراء أيضا آية 166 وفي سورة الأعراء ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الأعراف آية 80 والآية إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون سورة الأعراف في حين يجد آخرون بأن عقوبة قوم لوط كان مضاعفة على فعلتهم فقد عاقب الله عز وجل قوم لوط بخفص الأرض وجعل عاليها سافلها ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل منظور مسومة في حين عاقب فرعون وقومه بالغرق في حين عاقب فرعون وقومه بالغرق فقط وعاقب عادا بالريح وعاقب عادا بالريح فقط وثمودا بالصيحة فقط وفي هذا دليل على قبح المعصية وشناعتها وبهذا الموقف الشرش للشريعة الإسلامية تجاههم أكد به الشيخ بامبا أكد به الشيخ أحمد بامبا في منظومته منور الصدور زنا لواط بفروجهم فقط خصا فمن نال فمن مال إليهما سقط وفي منظومته ملين الصدور خص الزنا بالفرج مع لواط فاحفظهما هديت بالصراط وجدده كذلك في أتباعه والدليل في ذلك دعم الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى بجميع تصرفاته لحركة أن سام جيكوي بموقف ديني إسلامية ومن هنا نختم ونطلب من جميع الحاضرين والحاضرات تكرار هذه الألفاظ ثانيا jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. bismillahi rahmaani rahim. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. nous rendons grâce infiniment à Allah,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 Ibn Cheikh Mohamed Fadal Mbake, dont nous saluons l'engagement ferme pour la réussite de cette journée. Qu'Allah lui accorde une longue vie et une santé irréprochable. Ces prières vont également à l'endroit du Khalif général des Mourides, Cheikh Mohamed Muntaha Mbake, et de tous les dignitaires mourides engagés dans l'organisation de cette journée. Le choix judicieux et pertinent de ce thème justifie nos remerciements sincères à l'endroit du comité scientifique qui a livré une documentation pointue aboutissant à une meilleure appropriation de la famille à travers le Coran et les enseignements du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. En effet, la famille se définit comme un ensemble de personnes liées par la consanguinité. Son importance dans la vie de l'homme est fondamentale. Historiquement, la famille a donné naissance aux tribus, aux dynasties, aux royaumes, aux nations, aux États. Son postulat de socle de la société fait que la famille a toujours été l'objet de plusieurs influences sociopolitico-religieuses, cherchant à la façonner chacune dans le sillage de l'atteinte d'objectifs stratégiques pour la survie de la communauté humaine. Deux tendances s'opposent alors parmi ces sources d'influence. La religion, qui fait face au mouvement qui prône la liberté de genre, Naturellement, nous traiterons uniquement la plus positive, à savoir l'islam. Alors, comment l'islam traite la question de la famille? Nous y répondrons à travers des analyses tirées Coran et des écrits du Cheikh. Selon l'approche coranique, l'islam est une religion qui insiste fortement sur l'importance de la famille et plusieurs passages du Coran en attestent, la sourate 51 au verset 49 où le Seigneur nous dit Et de toutes choses, nous avons créé une niveau de la sourate 7, verset 189, le Seigneur nous rappelle que c'est lui qui vous a créé d'un seul être pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut quoi elle se déplaçait Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent le Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Toujours selon cette approche coranique, au niveau du verset 26, 165 de la sourate 26, accomplissez-vous l'acte charnel avec les de ce monde. également au verset qui suit, le verset 166 de la sourate 26. Le Seigneur nous dit, et délaissez les épouses que votre mais vous n'êtes que des gens dans la sourate 29, au verset 28, le Seigneur nous dit, et Lout, vraiment vous commettez la turpitude où dans l'univers ne vous a précédé. de l'islam, il est noté que plusieurs anciens peuples ont été décimés et détruits par de lourdes sanctions, sanctions du Seigneur pour avoir transgressé les prérequis et ses interdictions sur l'homosexualité. Nous pouvons citer les Ad, les Tamoud et le peuple du prophète Lout. Autant dire que le Coran accorde au thème de la famille qui ne peut être bâti que dans le couple naturel homme-femme une place primordiale et considère la famille comme une composante centrale et essentielle de l'existence de l'espèce humaine. Partant de cette approche coranique, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba se prononce clairement sur la question familiale basée sur le couple femme-homme. Dans son ouvrage intitulé Mon ami Soudour, écrit La fornication et l'homosexualité sont deux pratiques abominables dont les auteurs sont répréhensibles devant l'islam. En outre, dans Moulayin Soudour, il réaffirme clairement la fornication et l'homosexualité sont deux péchés liés à la vie sexuelle, dont il faut se garder pour que le Seigneur mette le croyant sur la voie de la droiture. Partant de cette position du cher, les différents khalifs de Selim Touba ont eu à s'illustrer de très belle manière par le traitement qu'ils ont apporté à la question de la famille. Serigne Muntaha Mbake, actuel khalif de Serigne Touba, qu'Allah lui accorde une longue vie et une santé de fer. s'est illustré brillamment sur cette, sur cette question. Ainsi, en recevant le mouvement citoyen André Samudjikoyi, il a pris une position très claire et sans équivoque, en exprimant son opposition radicale à l'homosexualité et en montrant sa ferme détermination à faire face à toutes les tendances sournoises qui cherchent à l'implanter dans le pays. Serine Muntaha Mbake, généreux homme de Dieu, le Sénégal, à travers la Journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba, vous rend un hommage grandiose et vous exprime toute sa, toute sa gratitude et sa sollicitude. Il ressort des sources coraniques, prophétiques, des enseignements pratiques de Cheikh Ahmadou Bamba, des positions et décisions historiques et engagées des khalifes généraux, que dans l'architecture de la foi islamique, la famille est placée par Allah comme une brique spirituelle prioritaire. Pour conclure, L'islam est une religion qui place l'homme au centre de sa mission. Dieu dans le Coran proclame, nous avons élevé l'homme au-dessus des autres espèces. Il proclame encore que la seule mission de l'homme sur terre qui vaille est d'adorer le Seigneur. Pour réussir cet objectif premier assigné à l'homme, le Seigneur lui a délivré un cadre logique et naturel, un framework civilisationnel qu'est la famille bâtie dans le couple homme et femme. Plusieurs passages du Coran montrent que l'islam considère la famille comme le noyau d'une société cohérente et équilibrée, qui ne saurait naturellement céder le moindre espace d'expression aux antivaleurs comme l'homosexualité, qui est le symbole de civilisations à totale décrépitude. Les positions du Coran et les pratiques du prophète sur la famille ont bien trouvé un ancrage fort dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, perpétués par ses différents khalifes généraux. C'est dire que les gouvernements d'ici et d'ailleurs gagneraient beaucoup à adopter la vision islamique sur la famille, ce qui épargnerait alors l'humanité des crises des valeurs qui secouent fortement le monde et la race humaine. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf Serigne jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. We give infinite thanks to Allah, the beneficator and the provider who gave us the chance to celebrate this 11th edition of Sheikh Ahmad Bamba World Day. Prayers to the Prophet Muhammad, peace and salvation be upon him, as well as for his noble family and his noble companions. including those of Badr who reduce this day. This day is a symbol of the unlimited recognition that humanity intends to render to Serigne Touba, the tireless missionary of Islam, the slave of Allah, and the accepted servant of the Prophet Muhammad, peace and salvation be upon him. This explains why several localities in the country and abroad celebrate at the same time and the initiating cells of Dakar these days whose global dimension is affirmed from year to year. The theme chosen this year by the scientific committee is Family, the nucleus of a coherent and balanced society. This theme was proposed by Serigne Modou Mamoun Fadilu, son of Serigne Mohamed Fadilu whose firm commitment to the success of this day we salute. May Allah grant him long life and excellent health. These prayers go to the Khalif General of the Murid, Serigne Muntakha Mbake, and all the Murid dignitaries involved in the organization of this day. We sincerely thank the scientific committee. Family is defined as a group of people linked by consanguinity It's important in human life in is fundamental historically. The family gave birth to tribes, dynasties, kingdoms, nations, and states. Its postulate as the foundation of society means that family has always been object of several solistical, religious, and societal influence seeking to shape it respectively in the wake of the achievement of strategic objectives for the survival of the human community. Two opposing tendencies among these sources of influencing are religion, which face movement advocating gender freedom. Naturally, we will only deal with the one that is the most positive, Islam. How does Islam deal with the question of family? We will answer it from three angles of analysis, the Holy Quran, Sunnah, and the vision of Sheikh Ahmadu Bamba. The Quranic approach to family issues. Islam is a religion that strongly emphasizes the importance of family. Several passages from the Quran attest to this. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Surah number 51, verse number And of everything, we have created two elements of couple. Perhaps you will remember. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليشكون إليها فلما تشاها حملت حملا خفيفا حملت به فلما أسلقت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Surah number 7, verse number 189. It is He who created you from a single being, from whom He took His bride, so that He may find tranquility with her. And when He had cohabited with her, she conveyed a slight pregnancy, which which she moved easily. Then, when she found herself weighted down, both invoked their Lord If you give us a healthy child, we will certainly be among the grateful. Atatuna Zukrana Minal Alamin. Surah number 26, verse number 165. Do you perform the canon act with the males of his of this world? وتذرون ما خلقكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون Surah number 29, verse 28. And do you forsake the wives your Lord has created for you? But you are only transgressors. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِن كُمْ لَتَأْتُونَ حَافِشَةً وَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا min ahadin min al-alamin surah number 29 verse number 28 and lord when he said to his people Truly, you commit turpitude where no one in this universe has preceded you. In the history of Islam, it is noted that several ancient civilizations were decimated and destroyed by having sanctions from the Lord for having transgressed and requirements and prohibition on homosexuality. The Had, the Tamu, and the people of the Prophet Lord. it is sufficient to say that Quran gives the theme on the family which can only be built in nature by a man and woman, a primordial place, and considers the family as a central and essential component of the existence of the human species. Family in the teaching of Sirin Sheikh Ahmad speaks clearly on the concept of family based on the male female couple. In his book, Munawwir Sudur, Sirin Tuba fornication and homosexuality are two abominable practices whose authors are reprehensible before Islam. In another book entitled Mulayin Sudur, Sirin Tuba fornication and homosexuality are two sins linked to sexual life must be avoided so that the Lord puts the believer on the path of righteousness. Family during the Murid Caliphate. The various Caliphs of Serigne Touba had to illustrate themselves in very fine manner by the treatment they bore to the question of family. Serigne Mountakha Mbacké, the current Caliph of Serigne Touba, may Allah grant him long life and impeccable health, has distinguished himself brilliantly on this cause. Thus, Sering Muntaha, by receiving the citizen movement and the Samijikoi, took a very clear and unequivocal position by expressing his radical opposition to homosexuality and by showing his firm determination to face all the snaky tendencies to seek the established into our country. Serigne Muntaha, the generous man of God, Senegal through Sheikh Ahmadou Bamba World Day pays you a grandiose tribute and express all national concerns to you. It emerged from Quranic and prophetic sources, from the teaching and practices of Sheikh Ahmadou Bamba, from the historical and committed position or, and decisions of his Caliph that it is architecture of the Islam faith. Family is placed by Allah as the priority and spiritual pillar. To conclude, Islam is a religion that places man at the center of its mission. God in the Quran proclaims, we have elevated man above all other species He further proclaims that the only valid mission of man on earth is to worship the Lord. To assist in achieving this primary objective, the Lord has assigned man a logical and natural framework, a civilizational framework known as family built by the couple compromise of a man and a woman. Several passages from the Quran show that Islam considers family as the core of a coherent and balanced society which cannot in any way give up the slightest space for the expression of anti-value such as homosexuality, which is a symbol of civilization completely in The position of Quran and the practices of the Prophet on family have indeed found a strong incoherence and the teaching of Sheikh Ahmad Bamba perpetrated by various caliphs. This means that the rules here and elsewhere would gain a lot from adopting an Islamic vision on family, which would then spare humanity from value crises and strongly shake the world and the human race. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Bamba gracias rendemos gracias extremadamente a Dios el Beñachador el proveedor que nos da la suerte de celebrar esta undécima edición de la jornada mundial Cheikh Ahmadou Bamba ruegue sobre el profeta Mohammed, paz y saludos en él, así que en su noble familia en sus nobles compañeros como los de Badr. Esta jornada es un símbolo del conocimiento sin límite que la humanidad quiere devolver a Shintua. El misionario incansable de Islam, el esclavo de Dios y servidor acreditado del profeta Mohammed, paz y saludos en él. Es lo que explica que en muchas localidades del país y del extranjero se celebran en el mismo tiempo que la ciudad de Dakar, iniciadora de esta jornada, cuya la dimensión mundial se afirma de año al otro. El tema elegido este año por la Comisión Científica es la familia núcleo de una sociedad coherente y equilibrada. Este tema ha sido propuesto por Serigne Mohamed Magal Farilu, hijo de Serigne Mohamed Magal Farilu, Elkiyen sangrama su compromiso para el éxito de esta jornada. Que Dios le dé una larga vida y una excelente salud de hierro. Estos ruegos son directamente dirigidos en la persona del califa general de los Murid, Serigne Mohammed Muntaqa y en todos los dignitarios Murid comprometidos en la organización de esta jornada. Agradecemos sinceramente la comisión científica La familia se define como un conjunto de personas ligadas por la consanguinidad. Su importancia en, la vida del hombre es fundamental. Históricamente, la familia ha dado nacimiento a los tribus, a las dinastías, a los reinos a las naciones y a los estados. Su postulado de pedestal de la sociedad hace que la familia haya siempre sido el objeto de muchas influencias sociopolitico-religiosas, buscando dando la forma cada una en esta de objetivos estratégicos para la supervivencia de la comunidad humana. Dos tendencias se oponen en estas fuentes de influencia de la religión que hace frente a los movimientos que ensalzan la libertad de género. Naturalmente, trataremos una, de la que está más positiva, el Islam. cómo el Islam trata la problemática de la familia. Lo contestaremos en tres ángulos de análisis, el Corán, la Sunna y la visión de Sheikh Ahmad Bamba. En el enfoque coránico de la problemática de la familia, el Islam es una religión que insiste fuertemente en la importancia de la familia. Varios pasos del Corán lo certifican. Surat número 51, verso 49. Y entre cosas hemos creado dos elementos, pareja. ki sasnog es el que os ha creado en un solo ser el que ha tirado su esfuerzo para que él encuentre la tranquilidad cerca de ella y cuando éste hubiera convivido con ella ella concibió un ligero embarazo con el que se desplaza fácilmente además cuando volvió pesada ambos invocaron a su señor si nos da uno hijos sano, formaremos parte seguramente de los agradecidos. Surat 26, verso 165. Así de acto charnal con los masculinos de este mundo. Surat 26, versos 166. Y abandonáis las esposas que vuestro Señor ha creado para vosotros, pero sois solamente seres transgresores. Surat verso Hilo Cuando dice a su población verdaderamente cometéis la turbidez en donde nadie en el universo os precede. En la historia de Islam se ha notado que varias ancianas poblaciones diezmadas y destruidas eh, por, pesadas sanciones del Señor por haber transgresado prerequisitos y sus prohibidos de la homosexualidad. Podemos dar el ejemplo de los Had, los Tamud y la población del profeta Lot a sta bene decir que el Corán aclara el tema de la familia, que no se puede ser considerar que solamente en la pareja natural, hombre y mujer. Su lugar primero es considerar la familia como un componente central y esencial de la existencia de la especie humana. La familia en las educaciones de Serigne Touba. Cheikh Ahmed Bamba se pronuncia claramente sobre la pregunta de la familia basada en la pareja hombre y mujer. En su obra Munawir Sudur, Serigne Touba escribe la fornicación y la homosexualidad son dos pecados ligados a la vida sexual que se debe evitar para que el Señor meta al creyente en el camino de la justicia. La familia durante el califa Murid. Los diferentes califas de Sirin han sido ilustrados en demasiadas buenas maneras en el tratamiento que ellos han llevado en la película de la familia. Sirin que Dios, le dé una larga vida y una salud de hierro. si a o istrado brillante en esta causa asi seri mutaka recibiendo el movimiento ciudadano ando samojikoy ha tomado una posición clarísima sin equívoco expresando su oposición radical frente a la homosexualidad y muestra su ferviente determinación frente a todas las tendencias astutas que buscan a implantar en nuestro país. Sri Muntaha, el generoso hombre de Dios, El senegal a través de la Jornada Mundial Cheikh Ahmadou Bamba, le rende un homenaje grandioso y le expresa toda su solicitud. Surge de fuentes coránicas, proféticas, de enseñanzas y prácticas de Cheikh Ahmadou Bamba, posiciones y decisiones históricas y comprometidas de sus califas que en la arquitectura de la fe islámica la familia es plazada por Allah como un ladrillo espiritual primordial. Conclusión. Para concluir, el Islam es una religión que plaza el hombre en el centro de su misión. Dios, el Corán proclama, hemos elevado el hombre encima de las otras criaturas. Proclama todavía que la sola misión del hombre sobre la tierra que cuenta es adorar al Señor. Para alcanzar este objetivo primero asignado al hombre, el Señor le ha asignado un ambiente lógico y natural, un framework civilizacional que es la familia construit a través la unión de un hombre y de una mujer. En varios pasos del Corán se muestran que el Islam considera a la familia como el núcleo de una sociedad coherente y equilibrada que no dejará nunca el mínimo espacio de expresión a los antivalores como la homosexualidad, que es un símbolo de las civilizaciones las que están completamente en decrepitud. Las posiciones del Corán y las prácticas del profeta sobre la familia han encontrado un enclaje fuerte en las enseñanzas de Sheikh Ahmad Bamba, perpetuadas por sus diferentes califas. Es decir que los gobernantes de aquí y en algún lugar ganarían mucho adoptando la visión islámica sobre la familia, lo que salvarían pues la humanidad contra las crisis de valor que produce una conmoción fuertemente el mundo y la raza humana. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jaarama maam Cheikh Ibrahima Fall. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin almalik alxaq almubin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له معقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di tekk nuyo bi ak ziyaar yépp ci euh, loxol sëriñ Mouhamadul Mamoun moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi fi ne waaye mën naa jiital nag nuyoo boobu teg ko ci loxo jëwrin Seydina Ousmane Saane mu joxal ñu ko sëriñ bi lépp tàbbi ci biir mbokk yi ci njaal njaalbeen ñu ngi njëkkee santaat jëmm joo xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala sant na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant na ko alxulafaaul arbaa muy abu bakr omar usman ak ali radiallahu anhum sant nañu ko niki noonu niti yàlla yi ku mel ne eh, cheikh abdul qadir jeylaani sant na ko ku mel ne Cheikh Ahmed yi sant na ko ku mel ne Cheikh Abul Hasan yi sant na ko bañ a guddal a tax waaye kon lenn lu ne ñu indi na mu ko waxee ba teg ci wax nag ne ku ma gërëmut itam suñu borom gërëm na ma kon ndokk bi ñu ko gërëmee moo wax ne man lam yakun anniya yarda fal karim radiya anniya ridan laysa yarim kon ñu ngi teewluwaat di yeesalaat di sàkkuwaat ci yéen ñu biral loolu di wax bàmba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba waaye jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall mbokk yi ci tënk yàlla suñ borom subhanahu wa moo bind moo xam li mu bind te bindinu suñ borom dafa yéeme ndax léeg-léeg dinañ ne nit créé na wala inventé na waaye la muy créer wala muy invent mu koy inventé matière première yépp xam ngeen ne sosu ko waaye yàlla ko bind mu mu mu sukkandiku ca ngir sos yàlla nag huwa al xaaliq al baari al yàlla mooy ki bind mooy ki nga xam ne mooy jële ci inexistence indi ci existence mooy jële ci adam indi ci wujud kon mooy créer noonu waa bu weesoo loolu itam li mu créé moom yàlla subhanahu wa moo koy def na mu ko soobee moo koy fent waaye moo koy façonné kon ki mel noonu nag ci bind xam li mu bind jële ko ci neen bind ko kooku bu tracé yoon la mu bind war cee jaar loola bu wàccee yoon wa rek ciy jële mbokk yi misaal bi ma ciy faral di joxe mooy garab goo jënd ñaare pharmacie day am notice matériel électroménager yi ñuy jëfandikoo wala téléphone yi nga xam ne ku nekk nga ko yor ñaare day am catalogue ka ko defar de moo lay wax ne lii nii lañ koy jëfandikoo te loola mu lay wax ñaare boo ko wàccee yoon bi rek da nga gis leneen ñu joxe ci misaal bu gàtt ñaare boo jëlee garab xool notice ba ñu defal la effet effet secondaire yi wax na ni dina la nelaw loo lu mel ne ba bu doon somnifère tey wala yenn garab anti allergène yi wala yenn garabu sab yi saj yi nga xam ne lu bari daf lay nelawoo ñu ne kon dee ko jël booy tëdd wala boo waree jo yor volant bu ko bu ko jël boo ko jëlee yor volant tegu ci yoon mën na am alkanda rek nga ciy jële mbokk yi misaal boobu laay joxe ci suñu borom moo bind moo xam li mu bind moo ko rëddalu yoon alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir yàlla mu bind rek moo xam kon ñi ngi santaat Serigne Mamoun ñi ngi lay jagleelaat nuyoo di la sant di rafetlu sa taxawaay ci fi nga bokk te saa boo waxee wala nga jëf rek képp ku euh, koo xam ne njabootu Serigne Touba la dina bigaat ñi ngi ñaan yàlla yàggal sa taxawaay ci xam-xam gi ak ci diine gi ndax thème bii bu am solo la te li ñuy dund ci diine wala texte coranique yi li alquran di wax bu ñu ko tegee ni la ci wàll dund gi nekk ci wàll rek mooy lañ ca bëgg duñ ko ci am kon dañ koo war di jël moo xam ci xutba yi ci waxtaan yi di ko contextualiser loolu moo tax mooy tax mu mën ñoo jëriñ kon ni ko ni ko thème bi indee famille mooy noyau société nga xam ne famille sax day wax ne ab société en miniature la société bu ndaw la yàlla fonk loolu lislaam joxe ci jàngat yu baree bari xëy na yaatal ko du fi xaj waaye famille boobu mi ngi tàmbalee ñaare ci ndey ak baay ndey ak baay góor ak jigéen moo koy sos nga xam ne lislaam xër na ci ba kenn ku ne ci ñoom muy borom kër gi wala soxna si joxe na ci ay jàngat yu wér ci nu ñu ko war a tànnee tànnin bu mucc ayib nga xam ne bu ñu amee njaboot njaboot googu dafay mucc ayib lenn lu ne lislaam rëddal ko na mu war a demee ak fu mu war a tege nga xam ne bu ñu ci jaaree rek lu baree bari dina yëwén te thème bii nekk actualité ndax gis nañ ni euh, lu bëri ci ay pexe mi ngi jóg di promouvoir loolu di mbiru borom ñaari tur yi te ku analyser tuuti rek danga xam ne am na lu ne ci ginnaaw am ni ñu koy promouvoir ak coono yi ñu ciy daj da nga xam ne am na lu ne ci ginnaaw te li ne ci ginnaaw nag weesuwul ñu bëgg a yàq weesuwul ñu ànd ak seytaane bëgg a soppi li yàlla indi subhanahu wa taala kon euh, ñi ngi wax rek yàlla subhanahu wa moom mi bind te xam dafa wax ci alquranul karim wax ne wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni yàlla daf ne lenn lu mu mën a doon fii yàlla waxul nit ak nit ci nit rek dafa généraliser daf ne lépp lu mu bind moom yàlla subhanahu wa bind na ci góor ak jigéen def na ko peer moo xam ni mu amee ci nit am ci xayawaanaat yi góor ak jigéen noonu ba ci euh, wàllu science sax xam nañ ne dangay ngay am plus am moins wala nga am positif ak négatif dooga bu doog laa jural dara bu dee lu am njëriñ bu dee ci wàllu électricité wala leneen ni ngi noonu la yàlla bindee zawjay ni boobu ci lépp dund dee guddi bëccëg lu tàng lu sedd àjjana safara lu lëndëm lu leer lépp buñ ko doon lim xëy na dinañ fi yàgg waaye noonu la yàlla subhanahu wa bindee àddina ni la bindee itam bindam bi subhanahu wa taala loolu yëpp nag ñu war cee bàyyi xel suñ borom subhanahu wa taala fàttaliku ko ci tazakkur gi dafay ànd ak boo boo analyser tuuti mbiru suñ borom subhanahu wa taala daf lay dolli nga gën a xam ne rek yàlla mooy yàlla subhanahu wa mbokk yi ñuy promouvoir xalaat yu ñaaw yooyu walla jëf yu ñaaw yooyu war nañ xam ne day loolu bu fi njëkkoon wala bu doon noon la mbir yi doxe kon ñoom duñu am duñu juddu bay mën di promouvoir xalaat yu ñaaw yooyu kon xam nañ ne ay mbiri yàq rekk la yoo xam ne dañ koy def bu ñëwee ci wàllu nit nag jëmmi nit yàlla subhaanahu wa wax ne huwa allazi xalaqakum min nafsin waxida yàlla moo leen bind ci benn bakkan moo bind suñ maam aadama alayhi salaam bind ci moom soxnaam xawa yàlla teg ci lu am solo mooy li yaskuna ilayha mu mën a am mu mën a nekk ak moom ci ak dal dal euh, paisibilité am euh, lu ñuy wax euh, stabilité boo xam ne ci diggante góor ak jigéen rekk la mën a nga xam ne feneen dafa wax ne bi bi mu leen boolee góor ak jigéen góor am soxna dafa def seen diggante mawaddatan wa rahma mawadda ak rahma mooy cofeel ak yërmande nga xam ne ñaari way sëy yi loolu moo leen i lié ñaar yooyu moo war a am seen diggante cofeel may kenn ku ne dafay bëgg moroomam kenn ku nekk dafay yërëm moroomam ñu mën a ànd ci jàmm ànd ci bu neexee ak bu naqaree ànd ci bu ku ne wéree walla am ku ci tawat wala ku ci lott keneen ki taxawu ko taxawu goo xam ne dara du tax lu dul mawadda googu ak rahma wala dara du tax ngi ngi lu dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala donte sax borom xam-xam yi wax nañ ne mawadda cofeel ñi ngi ko gën a séentoo ci soxna si ci ku jigéen ki waaye raxma yërmande ñi ngi ko gën a séentoo ci borom kër gi nga xam ne bu loolu abee sëy boobu mooy tax nit ki mën a am ni ko waxee stabilité mooy tax xelam mën a dal mooy tax ruuxam ruu gi mën a am dal ruu gi mën a am cohésion boo xam ne bu sotti la digganteem ak yaram bi ba nga xam ne dana mën a indi dana mën a jëfee li tax yàlla suñ borom subhaanahu wa taala bind ko wàccee ko ci kaw suuf mbokk yi loolu bu soppeekoo rek leneen mooy am jarul jàng sax aaya yu bëri ngir xam ne ku ko jéem a soppi du baax ndax yërmande googu ak ak ak ñeewantu boobu tey ba ci wolof sax dañuy wax ne ñaari kuy du ñu bokk mbalka kon ku bëgg soppi bind boobu góor ak góor wala jigéen ak jigéen lu dul musiba lu ko jur boo leen xoolee ñaare ñiy def pratique yooyu boo boo boo boo jàngatee seen mbir rek di nga gis ne jëf ju nitee gu de gu gu gu ànd ak ak ñàkk nite gu ne dinañ ko jëf ndax dañuy mujj génn ci cadre nite lu ñaaw lu ne dinañ ko mën a def te soppi guñ jéem soppi bind suñ borom boobu subhaanahu wa moo leen ci yóbbu kon loolu joxoñu suñ borom la boo xam ne moo ko joxoñ moom mi xam lim bind subhanahu wa taala te bindee ko na mu ko soobee mbokk yi kon yàlla noonu noonu la bindee euh, li aaya yi wax rek ñu ñu jéem ko tënk léeg-léeg ndax yàlla moo boole góor ak jigéen fële mi ngi wax ne wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa ci góor ak jigéen suñ maam aadama ak xawa la mën a génne ci ñoom nag góor ñu bari ak jigéen ñu bari nga xam ne union boobu mooy ànd ni ko waxee cohésion boobu mën a am déggoo boobu mën a am diggante góor ak jigéen ci ñuy sëy talantee la kenn ku ne dafa yëg ci moroomam ne kii mooy gën wàllam kii moo ko mën a mottali kii mooy tax ba dundam maanaam mën a am stabilité yàlla indi njaboot famille boobu lu bari da ciy am mooy gone gi bu juddoo ci noyau boobu nga xam ne mooy mooy mujj constituer ab société dafay jàngat ci ñoom yàlla def ba ci gone gi sax bu ko waajuram ëmbee dafay am ay lu yàlla di maam lu yàlla di def ci moom te di ko jëlee ci waajuram boobu li tax lislaam tànnuloo fi ngay def sa jiwu xay xayiru mutafakum fa inna al iraqa dassas deret wala sidit dafa foor te dafay wàlle al baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi suuf si sell gàncax bu sell rek lay jur gone gi bu juddoo ba ci waajuram wu jigéen bu koy nàmpal sax di ko xool dana am ci sensibilité wala ak ñeewant wala ak nite loo xam ne dina ko nàmpatal doomam jooju doom di fosu diggante yaay ak papa léeg-léeg diggante ay mag ak ay rak di jàng société bi nu muy demee di jàng amaliyatul axzi wal maam lii di jëflante ci jëriñe ak jëriñoo ci jox ak jël nga xam ne ñii dinañ ko taxawu waajur wu góor wi ñaare di indi li ñu koy dundale di ko aar di ko sàmm waajur wu jigéen wi di ko toppatoo bu amee ay mag ak mag yi di veillé ci moom di ko yërëm bu amee ay rakk itam mu mën a euh, mu mën leen a euh, xëy na yërëm moom itam ba ci kër gi sax ni ñuy dundee waajur wi di indi yaay ji di yar léeg-léeg liggéeyu kër gi kii di ci jàpp kii di def nii nga xam ne loolu mooy jàngal gone gi ban comportement la war a am ci société bi nga xam ne bu loolu ne rek société bi dafay yéwén kenn ku kër gu ne bu ñu melee nañu war a mel daf koy mel ville bi daf koy mel région bi daf koy mel dëkk bi daf koy mel société bi daf koy mel loolu nag mbokk yi mbir la moo xam ne alquran ni ñu ko waxee ci langue yi fi jaar nga xam ne alquran indi na ko saxal na ko wax ne yàlla suñ borom subhanahu wa taala jëf jooju ñaaw gu mu ñaaw moo tax ba nitu luut yonent yàlla nuut ay nitam ñoo ko njëkk jëf yàlla mu ngi leen wax ne ndax dangeen indi ñaaw ñaawteef goo xam ne kenn jiituwu leen ci ci àddina bi mooy wane ne ñoo ko njëkk a jëf moo tax jëf jooju ci arab dañ koy tuddee al liwaat askanelewuñ ko ci yonent yàlla luut waaye ci jëfu xeetam woowu jëfu ñaaw woowu yàlla alakee leen alkande goo xam ne ci ñoom la njëkk ndax yàlla am na ñum alakee ñii alak na leen ci ngelaw ñii yàlla dafa yebal malaayka mu yëkkati suuf si ñu dëkkee woon wax nañ ne yëkkati na ko ba waa asamaan di ko dégg di dégg ginaar yi bu ñu sabee wala animaux yi bu ñu bu ñu yuuxoo yàlla dëpp suuf ci seen kaw ba pare yebal ay picc ñu taw ci ñoom ay daj yoo xam ne ci safara la jóge loolu dafay wane mbugal moomu dafay wone ñaaw waayu jëf ak rëyaayu jokk yi léeg ñi ciy wax am na ñuy wax ne jëf ji amoon na barab sàngam wala amoon na ci ay nit yàlla ñu leen wër ay waxi caaxaan rek la ndax boo amee ci nit yi yonent yàlla luut mooy yàgg naa am waaye taxul mu baax yonent bi sallallahu wax na ci kon mooy wane ni mooy wane ni jamonoom amoon na waaye du créé kuréelam di xisbu seytaan ji nga xam ne ala innahum ala inna xisba seytaan humul xaasiruun rek ca perte nga la leen jëme te xam ngeen ne du tàyyi la na lahum siratakal mustaqim la xoon suñ borom naagala nu ci yoon wi la uxwiyannahum ajmain dinaa leen dikkee fu ne kon du tàyyi waaye yonent bi saa sallam waxoon na ci dafa wax insisté ne bu leen jëfee mukk jëfi nitu nitu luut yooyu wax na ko feneen yonent bi saa sallam wax ne képp muy acte contre nature yooyu yonent saa sallam ne na ngeen rey ki koy def ak ki mu koy def nga xam ne foofu borom xam yi dañuy wax ne sax jëf ji lu moo tax ba yonent bi saa sallam foofu dafa généraliser daf ne faqtulul faail wal mafuul e, indi ci indiwu ci exception ki koy def xam ngeen na am na jëf yoo xam ne sax léeg-léeg lislaam dina ko teggi ay nit demeewul noonu wala àndul ak ñoom mais fii wala wala mu def ko ndax contrainte waaye dafa wax ne rek na ñi koy def ak ñi ñu koy def mbokk yi kon loolu la lislaam wax ci loolu yonent bi saa sallam leeral ko mboolem nit yàlla itam loolu dañ mës di indi di ko dawloo seeni nit di leen ko soriloo ba ki nga xam ne mooy suñu yaakaar ci lépp di cheikhuna ahmadul xadimit taxawaay boobu rekk la ci am njaboot itam moom la ci lañ ci mësa ak mu nawwiru sudur mu layinu sudur mooy liy leeral dënn yi wala liy nooyal nii mu layin mu nawwiru sudur mooy liy leeral xol yi te loolu yépp mu def ci nag loo xam ne daf koy dimbalee nit ñi rekk wax ne zinan liwaatun bi furujihim faqat xussaa faman maala ilayhima saqat boobu dafay lim cër yi ak bàkkaar cër bu ne bàkkaar yi muy jëf mu wax ne nag bàkkaar yi mooy njaaloo ak jëfi jëfi boroom ñaari tur yi wala jëfi nit yonent yàlla luut yooyu teg ci na nag ñaari jëf yooyu day muy njaaloo ak jëfi ngóor jigéen képp ku ko jëf rek jeng nga te jëm nga ci loo xam ne mooy alkande daanu nga ci li nga xam ne mooy lu gënul feneen mu wax zina bil farji ma liwaati faxfazhuma hudiita lissiraati nee na kon pëyub nit ki li nga ko jagleel ci ay ñaawteef mooy njaaloo ak jëfi nit yi yonent yàlla luut yooyu nee na comme boo leen wandikoo rek yàlla dina la gindi dina la rek ci siraatul mustaqim loolu mooy boo ko wattandikuwul munoo tegee mukk ci siraatul mustaqim te loolu yàlla ñu ci yàlla musal ci barke Cheikhuna Ahmadul Khadim mbokk yi kon loolu ab tënk la xëy na jataay bi xat na bëgguñoo xaabaabal lool te xam nañ ni li ci li ci ëpp solo ginnaaw nag liggéey bii nga xam ne ñi jiitu def nañ ko sëriñ bi dina ko indi dina ko mottali incha allah kon ñi ngi waxaat ne yàlla huwal musharri' bu ñuy wax constitutionnaliste yàlla rek moo tëral sharia yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw ak yonent yi ko jiitu woon ngir leeral jubal nit ñi ci sharia boobu yàlla tëral subhanahu wa taala kon ku ci jaar rek mooy mënta mucc kon ñu xam ne noonu la demee loolu la yàlla digle yonent bi sallallahu leeral ko mboolem nit yàlla yi leeral ko Sëriñ Tuubaa jàngale ko ba sëriñ Muntaxa mii fi ne yàlla na ko yàlla gën a dëgëral te guddal aw fanam moom itam loolu la yeesal ne ci ba ci sax ñuy xeex loolu di kuréel googu ànd sàmm jikko yi xam ngeen ne sëriñ bi dalal na leen bi fi jafe-jafe yooyu amee ci ndax dañ koy dëggalaat na wéralaat na loolu lu ñu war a sori la ni ko yàlla diglee ni ko Cheikhuna Ahmadul Xadim déwoon kon ñu ngi yemale fii kàddu gi di jéggalu lépp loo xam ne Eh, amu ci solo ci xawatane ñu santee ko suñu borom di dellu di ci suñu làmmiñ di ko tibbee ci suñu xol te ci suñuy cër jërëjëfe borom Touba jëfe-jëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall wa sallallahu ala sayidina muhammadin dëppoo sama diine daan ko loola man dama ciy muslu dama koy moytu dama koy xeex ndokkee man nag bi nga xamee ne suñu yaakaar tey ëllëg Cheikhul Khadim àdduna ci te ñim jamono ñi bokk seq njaboot bi ñëpp ko àdduna ci wax naa ne luy xeex góor jigéen ak lu xeex ba tar tar tar su dee seet ak tam fekk waxuma yunnu taan la wër man danaa ko wër la ca tegu nag tey taw mooy détail bii sama sëriñ sama yaakaar tey la xalaatam yéene bëgg-bëggam moo gën sama fexeeg adduna yëpp bi may soññi di ma defal taw yu mel nii fàttali ma taxawaay bi ak onzième édition bi xamuma woon ne thème bi loolu la ma ñëw fii indaale wu ma woon jël kat dama ñëw rek taataan ci mu jox ma ne ma kàddu gi sànni ñaari baat ah kon ngeen xam ne moom moo xam lam nam ma ci man maa ngi yàlla yàlla naa mel ni mu bëgg ma mel. damay bañ a wax lu niroog daanu waaye ni ma yàlla booleeg moom laa leen bëgg a wax tuuti dama nekkoon dirigeant grève ci waaye daal dimbaloon ma balaa ma daan yëkkati kàddu suma bokk taalibe yi dañ daan yëkkati ay xesit ger ba geraw ba lool état bi jaaxle kilifa diine yi bëgg ca dugal seen loxo loola ma nga xewoon Kaolack ci jamonoy sëñ Moussa Gagne Seri moom sëriñ Basiru Mbàkke yal na yàlla yokk leer sëriñ saa sàkku ni nañ ko wax ñi dirige grève bi nañ ñëw seet si ba ma ñëw mu ne ma daa jot ndigal ngir fexe grève ba dàkk ci kaw ndax ma ne ko incha allah ndigal la dinaa jéem waaye saa bakkat bi dégg naa ko lakk nañ suñuy gër lakk nañ su ma doon sama doon liggéeyee waaye maa ngi nii maa ngi nii traité bi sëñ Touba ba loolu weesoo ñu yóbbu ma Touba ci ku tedd ki Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla ñu kàlla fayal Cheikh Abdoul Ahad dama wax nan lay xamee sama sëriñ nan lay gisee sama wasila ndax damaa bëgg a jébbalu ci moom mu ne ma nga njëkk a liggéey ba koy xamee noonu la amee ma tedd gi nee nañ onzième édition ñi ma bokkaloon doon julli léegi xool naa ne fukki benn ñoo bokkoon ci sàppe xaw ma nag ma yem foofu xam ne man du ma lenn lu dul jaam jaamaatu taalibe Cheikh Fatim keroog yi ma xiyaam it ñu dajee ci àjjana ñu ne dañuy seet kenn ku ne fa ngay jaar bu dugg bu Cheikh Fatim taxawee ne daanaka la ñu ngi tudd di ko tudd rawatina Cheikh Oum Fadel taxaw ne nga xam ne dugg naa ci bëgg ba léegi man dama naan tekk rek waaw kii wuutu Cheikh Cheikh Oum Fadel te dëbbee liggéey bii ñu ngi war a wàññi ñu toog fii ci wàllu fa taxaw ak yakkam ba ca laaj baaraam yi nga xam ne moo defal moo kenn taxawul mooy Sëriñ Tuubaa nekk ñëw sax ci kaw dama naan tekk rek man daa doon xam ne àgg nañ man bu ne dama naan tekk rek man si nawet bi wane yoon bi xam nga lépp Cheikh Mouhamed Fall a offert au gouvernement bi def ko perspective perspective bu ñu sëñ Mbacke bu tombé dama naan tekk rek ba taxaw kenn rek laay daal kenn rek laa wóor kenn rek laa doy moom maa ngi ci biiram pour xam yóbbaale ma lu ma jaamu yàlla yaa ngi ko kenn dafa àddiyee muy sama maam wax dëgg ko ne ko. man defar mbiri ay di taxaw fii di lii leen jaar nii amu fi. sëñ Bambaan bi Cheikh Ibrahima bi. sëñ Fall bi te soxla kaw. mu dégg ko fekkal Mbacke loolu la man dafa jox defal na ko. Mbacke saa amiin Balla yi amiin Balla yi amiin Balla yi. amiin Barke Sëñ Fall dégg nañ de dégg nañ maa ngi gis taal bi. mbokk taal bi comme ni ma ko doon sant ñu defaraat toogaay yi. bu ñu jógee présenté woon ni wax na ma sama sama yaay ñu déggante ba ci sëñ bi maa ko xamee kër kon dara ko buuf di ko ñaan ak wér ñu ñu ñëw ba taal seen i bopp ñu ñaan da ngeen ko ñaanal ñu yëngal yàlla ay su ak wér ci barke yonent bi ci barke sëñ Tuubaa ci barke sëñ Fall ci barke wér ñu ne sëñ ngi nii Cheikh ngi nii

waaw xam nga ko loolu waaw si si moom li nga def ma ne ko maa ngi ñëw jàllale ko xam nga loolu laa bëgg nga xam ko si nga tey tey bu ñu jëlee boo tasee moom nekk ci sa borom ba sëñ bi jël carte ba noppi waaye ni yaa jaxase mbooloo jaxase mbooloo moom laa dafa gën yàlla ñu tey la ñu jël moom la umpëlee ñu ngi ko tey yàlla ñu tey tey ci parti yi ci parti yi ak ak ak asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ bi ndigal bi la ci tool yi nee na nga ñaanal leen ñu ko am borom ko am borom bëri ñu war a am ñu war a am wërsëg am wërsëg bu wërsëg d'accord yàlla jël yàlla jël c'est bien c'est bien ànd la ñaan suñu fàgg ñaan comme la waa ñaan sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant Serigne Touba wax jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf la ki maam Cheikh Ibrahima Fall ndax mooy symboliser taalibe bi yëpp. boo defee rek ñu sant yàlla ñu fekk ñu fekkee ci jotaay bi beneen yoon tàmbali ziare bi ak nuyoo bi ci borom jotaay bi. bu ñu koy defal ni ngeen ko waxee mu di Cheikh Mouhamadou Mountakha muy Serigne Touba ñu ñaanam yàgg di loolu wér. ba léegi muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko sago

di ñaan Cheikh Abdou Fatah mi yor kaddu kër Sëñ Fallou ak njabootu Sëñ Fallou ñëpp di ñaan njabootu Sëñ Tuubaa yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen nuyu yéen ñi teew yëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw di leen jaare eh, lim benn kii bi ñu teew tam dama chérif defe naa ñu defal dara Sëñ Tuubaa direct yonent bi teew fa alayhi salaatu salaam yi nga mag moom lépp comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko bind na ko ay bataay nabiyul Mustafa xayrul wara rabbi fi kulli shay'in wa ma yabahu abaa yonent bi rek ñor yonent bi rek la bëgg waaw mahat mahabbati al muxtaara sayidina xubbil malamiya wal ahlina wal wala génn kurti rek la am ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ngi koy sant di ko def ak ni ñu koy defal direct yonent bi teew fa kooku kooku yëf yi mat na ngeen koy waxee ñuy ziare soxna yaaram Mbacke Mbacke bi ziare sëriñ Mamour Mbacke moom xaalis moom Cheikh Ibrahima Mbacke moom sëriñ Touba ak njabootu sëriñ Touba ci teew yëpp ak njabootu moom Cheikh Ibrahima teewal soxna yi góor yi mag jigéen yi mag yi ñëpp rek euh, di fàttali tam bari nag ñoo xam ne ñenn ñoo xam ne daanañ ko ko ñu ñu coowaree bi ñoom voilà euh, te jiitu gannaaw dañuy sant Sëriñ Tuubaa mooy seen siidal waxtaan ba ba muy onzième édition ci ren ko ñaan yàlla tas ci barkeem yàlla yëpp yërmande te yàlla teg loxo ci jabal bi di fàttali ko sëriñ Cheikh Jëmbu Fall di ko sëriñ Cheikh moo toog toogaay Cheikh Ibrahima Fall di kilifa ci ñun di jaay ñun ndax borom kër gi di suñu Abou Baraka xam ngeen ñu demee moom kon moom itam ñu kenn du fa nekk la nga jëlee kat ñëpp loolu la ñuy fàttali ko waaye sëriñ kan kon ko sëriñ Mamadou kan dañ koo xam ci turu waaye waaye sëriñ kan maa ngi gis ci yàlla ni kan njabootam di kon ñu di fàttali ko baax a baax day ñaan yàlla yokk koy leer yokk sëñ Babacar Dieng xam ngeen ko muy def daan sonn ci liggéey bi la muy dem gis ngeen ko daf daan taxawee initiation yi doon def ak discours yeeg làkk yi wute yi nga xam ne moom ci dugaloon kon ñu koy fàttali moom te woote yëpp rek di fàttali ko sëriñ Abdou Aziz Mbacke sëriñ Moussa Fallou Mbacke daan bokk ñu liggéey bi émission yi mu fekk lépp mos ko wóote lay taal waa ànd ak ñun ba yëf yi jeex kon ñu koy wax yàlla ñoom daal di nekk soobareem kon fàttali ko day ñaan yàlla yëpp ñëw maa di ak njëgal di barke bàyyam bu jàkk barke maanaam la bi ndax li ko borom kër gi itam nga xam ne moo ko moo ko jël doon jëloon def ko sëñ Tuubaa te sëñ Moodu Fall Cheikh Moodu Sa Fall Mbacké liggéey bu rëy liggéey kër sëñ Tuubaa liggéey kër sëñ Fallu kenn du ko fàtte moo rakkam bi baax ga Cheikh Moodu Lamin ñu fàttali ko borom kër gi ñu dégg Cheikh Moodu Moussa yéen kii dafa ñëw sëñ Tuubaa ne ñëw kër sëñ Tuubaa sëñ Moussa mooy sëñ Tuubaa sëñ Fallu mooy sëñ Tuubaa kon ñu dégg kër sëñ Tuubaa ñëw kër sëñ Tuubaa rek dañ jeg sotti ci la Cheikh Moodu Moussa moom Moussa ci ak yaatalam bëgg lu baax ak bëgg diine ba nga xam ne ay këram sax daa ko tuddee këri sëñ Tuubaa këri yàlla la ko daan waaw kër yi ñu sëñ bi sax daaw ko tuddee këri sëñ Tuubaa wala sëñ Moussa parce que su ko nekkoon tuddee ko kër waxuma la kër waaye bu ko nekkoon tuddee ko sëñ Moussa kon nag ko soppi na xajoon na ñëpp na ñëpp ànd na ñëpp kon bu ñu jógee këram ñëw këram kon def ceeg soppi ci rek dañuy yàlla di siyaare waa Sénégal yëpp yaa ngi doon déglu moom tamit kenn gënu di liñ baara moom daan taxaw ci bis bi daan ci sonn ci seen njabootam def ci àll bi ci xalaatam loolu kenn du ko fàtte ñu xam ne bis mooy baax rek bisu maanaam kon yooyu yëpp rek te it loolu ñu jàngi jàngi bu rëy ñoom foofee ñu nekk yàlla ñu fa nekk jàmm ak mucc ak wér di bis ko bis yooyu ñu am da ko am kon nag nañ koy bàyyi xel yàlla yàlla yàq. ngeen ngeen yàgg ci loolu baax ngeen sax ndax yàlla ko julli na ko. lu nafsin daa'iqatul mawt. kullu man alayha fan. kullu shay'in halikun illa wajhahu. loolu alquran jàng. dañoo wax ne Serigne Touba nee na li ñu jàngee ñetti kullu yooyu. mu wóor ko ne wax yàlla mu wóor ko dëgg la am. surtout nag alquran karim lu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du jënd jëriñ bindee fi du fanaan ci àdduna lu ko nekk. waaye nag alquran ak waxee yoon baa ngi ci sunna jëriñ bindee yaa ngi ci sëñ Tuubaa nafoon wala la fi nekke ci suuf tey jii wala saa yi ñuy kon kooku euh, loolu lu ma la bàyyi xel la ñuy sant itam nag bokk yi tamit jël kàddu moo xam am ci français bi arabe bi la wala anglais wala espagnol wala euh, français wala arabe ak su kàddu yi kàddu yi rafet na matal na kon dañuy wax rek nag shukran lakum jazilan wax thank you very much wax ma di gracias jërëjëf jëf barakallahu di sant itam oustaz bu tedd bi Serigne Sow ci kàddu yu rafet yi taw Lamine Sow kàddu yi matale na loolu macha allah daanaka lii ñuy wax njëriñ ko woon kàddu sant la ñuy waaye li ñu war a wax di ko xëy te bi ngeen di wax di di ni ngeen ko redressé wax mbiru famille islam taxawee ni islam jàppee ni ko islam dëgërle wér wu ci nag delluwaay yu baax yu wér yi ci nekk muy alquran karim ak sunna sëñ bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbiru kon xam loolu pour bind ay yoon yoon te ñaari téere yooyu ñu tudd mu lay yus mu lay yus rek am na yoo xam ne benn téere bi daa ko imam al-Ghazali di jël donc bi day yëngu ci rek mu naw mu ko yokk ko commenté ko am yu ñu ca yokk ak yu ñu ca def waaw am suñu fois ñu leen di nga xam ne am jamono yoo xam ne daan jël téere bu nekk bu nekk mu tëgg ko def ko ay way kon loolu nekk defee moo la moo la yëngu sudu jël soit tudd ko mu naw ko sudu waaye lépp daanaka benn téere bi rek bi day yëngu hidaaya la passé bu imam al-Ghazali naw mu ko waaw maanaam daf ko daf ko ay way xam nga ne way dafa yomb jàpp te yomb mokkal boobu dañu ñëw koy sax nga xam day xaw a diis ñàngale mu bëri ko dafa daan def yooyu ngeen ngeen traité ko traité dégg bu rafet rafet leer nga xam ne bu ngeen dégloo ñeenti langue yi nga xam ne dana yenn wax ji la waaye langue yee wute te loolu tamit tudd rek mooy ñu xam universalité Serigne Touba Serigne Touba appel am appel àdduna si la yaa ahla barri yaa ahla baxri ma mawjuli barri baxri ñëpp ci lañ waaw damay wax ne jër yi ci biir jër yi sax sëñ bi wane leen pour ñu yoon Cheikh Sari bu mu koy melal daf ko ne wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafal wara fi subhihi wa masaay nafal wara la ko wax jëriñ bi nekk boo ko jëriñ muy murid yi boo ko jëriñ jullit yi boo ko jëriñ sa sa njaboot donc boo ko jëriñ waa Touba wala waa Sénégal alwara la wax te alwara tur yàlla ci nga bokk kon sëñ Touba njëriñ la tur ñëpp ci àdduna yàlla yaa ngi jëriñ sëñ Touba sëñ Abdoulaye Wilane di ñu ne sax dégg nañ kàddu yi macha allah gis eh, nañ ci xol te rafet na leer na ëpp na ko ci wax ñoo ñu ngi bàyyi xel baax a baax moo tax ñu insisté woon pour nga sànni xam ne boo koy xool ci àdduna yàlla ni mu ko ko ni mu teg ak cër bi mu ko a ñàkk fayda mbaam yeeg golo yeeg ganaar yeeg bëy sax ëpp ko ëpp ko wax ëpp ko jëriñ dem foofu mu ne lépp nag bokk na seen li ko war a rek mooy li ko sëñ bi ñàkk xam ak bàyyi bi sori diine ak ñàkk gëm yàlla ndax nit ki dafa war a équilibre spirituel ak matériel benn côté bu mu ci ëppal rek mu fekk waaw matériel bu ëpp bu kenn xamul xaabaabal ga moo war a déséquilibré moo ko nit ki bëgg a wàcce boppam su ma rafetlu naa asfala saafili asfala saafili nag yooyu alxuraan waxoon day mel ni ci lañ bëgg a nit bu bëggee dem ba xar ëpp ko wala ganaar ëpp ko bu ganaar janax ëpp ko ganaar mbalaat ëpp ko ganaar mbott sax ëpp ah, ganaar mbott mu góor ak mu góor duñu bokk seen bu jàng mbokk mu jigéen mu jigéen mbott mu jigéen mbott ci ëpp laa wala wala ak janax mu jigéen ba mu jigéen duñu ci ànd bu nit nag da ko yàlla terale nga bëgg dem wàcc sa bopp ba mbott yeeg ganaar yeeg ak ak ak ak ak ak ak janax sax na laa ko wala kenn xam lu ñu ci am sori diine la ak jàkk waaw hmm. léegi nag def ko agenda boo xam ne dañ cee boole ay moyens wala ci propagande wala ci média def def ko programme boo xam ne bëgg nañ cee boo waxee lu jëm sax ñu attaque coow ba léegi nit rek waaye nit ñeen nite woon di def yëfi nit ba léegi ñu ngi def yëfi nit boo wàccee yorom yi dëgg nekkatoo nit yaa moo yàlla gëmoo yàlla déséquilibre la yàq déséquilibre ko sëñ bi waxee ni yàlla mach appareil bi sax ci ko bind da cee boole notice ni nii lañ koy utiliser soo ko bëggee jëfandikoo nii defal lii defal defal lii soo ko bàyyee nag defoo ko doo ci am la bëgg yàlla bi ngi bind nag teg ñu fi bind te ni nga ko xamee islam al kulliyat al xamsa la fi te juróom mbir a aar ah dañuy wax ne li ñuy wax fexe fexe al maqasid bu ñu xoolee islam bi bi texte yi bëri alquran ji rëy rëy juróom mbir la bëgg woon ah diine ji ak ak ak bakkan doomu aadama ak arale doomu aadama ak ak ak ak waasu nit ki sécurité doomu aadama mooy xefdul nafs xefdul diin xefdul maal xefdul nasl ak xefdul la la li ñu koy waxee ak ak ak ak ak xefdul nasl sa sa sa sa sa diine ji dañoo bëgg nga aar moo tax ñu aaye bor bokkaale sa alal dañoo bëgg aar yàlla dafa bëgg ñu koy aar moo tax ñu aaye sàcc ak ak addu kalpe ak tappale ak wuruj xeet bi yàlla dafa bëgg ñu aar ko moo tax ñu aaye jaxasoo góor ak jigéen ci lu dul mariage loolu islam li mu xam mooy adduna si lépp dagal ba mu des mburu lu lu teg si aaye lépp dagal rek ci li wax ji ak jëf la ñuy wax rek lépp dagal lu dul lu yàlla aaye ci teg da nga ko araamal da nga nañ ko si loolu ñu dafa dagal ba mu des diggante góor ak jigéen diggante góor ak mooy dafa araam dara du ko daganal lu dul mariage mariage day institution bu yàlla teg ngir teral doomu aadama te da koy waajal di ko suñu bopp balaa bala ñu ko fas nañ ko teg bala ñu ko fas waa ñu seede amul can ñu amul ko jàng jàng ko alxuraan wax fi yonente bi ñaan ca wala dara xew doom ji bala ñu ko juddoo danañ ko def toppanteel ñaanal ko danañ ko topp waree fa danañ ko fexe danañ ko topp danañ ko jàngal danañ ko encadré bu fekk mu nekk mu xel kon nit ki yàlla war teral nit ki yàlla war a mën yow nag nga jël loolu lépp nag ko xisaab bi bu ko yebal xar yi ak ak yi ak muus yi moo moo dañu rëb ñu ngi nii mayukaay nit ku nit nga wéy muus baa nga yom xar baa nga janax baa nga yom ganaar nga dem nag bu ganaar gi muus nekk janax bi ak bor bi ëpp la ba def su ko lu dul ci àdduna bu ko defee bul topp lu baax nga defee itam boo fësalee rek ñoom nga am kayit parce que agent naa la ay groupe ci bokk yu bari doole yoo xam ne yàqu nañ bëgg a yàq yàqu nañ bëgg a yàq ak doole nag ba nga xam ne foo wax ci doom danañ dugal fii dugal fi jëriñ te dara bëgg tudd bëgg yàq waaye nit ki loo bon bañ bañ sa bopp xanaa doon nag mbott gën dañ koy bàyyi xel te jàpp li am xam ne bu ñu kenn fëkk bëgg teraanga wala bëgg lu baax wala bëgg alal bu tax ñu dugg ci loo xam ne xar yeeg bëy yeeg janax la duñ ko yàlla na ci yàlla jubal ndax ngeen ko amee ci rek boobu parce que thème bi maa leen maa leen xam thème général rek waaye a def ndax day day thème na lu te nit ñu bon bëgg bonal nit ñi rek ñoo ko ñoo ko bëgg a jiite te am ñu néew la réew moo ci dem rek ña doon baax ñi baax ba léegi occident bi ñuy wax ba léegi ñu fa doon baax bañ la leen xam kenn ñu wule dafa ñaari tur wala juróom nit daal benn tur ñu waaye ñaari tur moom comme li li am rek góor jigéen wala góor a xamloo nag mu la bëgg na la sànq la bëgg laa sànq waaye ñu doon baax ne ngay baax ba léegi ci Occident ñu doon baax ñu ci baax koy gën sax te yëpp ñu yëpp di ko ñëw ko ñu xam li ñu xam mën nañoo woyee ci kaw mën nañoo laajoo ci kaw mën nañoo ubbi ci kaw waaye li ñu gëm jàpp ko di ko doxal nañ ko jàpp kon boo watoo sa diine watoo sa bakkan watoo sa alal watoo sam koom da ngay sa sa askan bi parce que askan yi bu ñu jaxasoo li ñu bokk adduna naata manage bi la woon ñu mën ñoo yegg ndax yàlla li ñuy wax ne ñëpp yow am ñu dégg seen ndax yàlla mi bind moo yëmale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yëmale ko Sëriñ Tuubaa mu tedd yi nga xam ne yàlla yàlla yaakaar dañoo wax ne ci biir ñam sax daawul boole ñu war tànn jataay sax ñu daan togg ñu war a togg ak ñooy togg am na ñoo xam bu ñu toogee yow ku fa nekk diw diw ñu diw diw dañ dem barab sax boole ñam sax da ko boole ñu war tànn xam ne yàlla yëmale dañuy wax ne bu yàlla ñi kër yëpp yow tam ñu génn seen kër am si ñun naaj ak si la seen semence bi jaay kon bu ko defee rek ngeen traité bi ni ngeen ci àggee ba li actualité nga xam mooy lëmbee àdduna ngeen ko façon bi nag ak juróom ak sajaa ak courage ak xam-xam def ngeen ko courage xam-xam ndax xam boo ciy wax boo ne yàlla nee na yonent nee rek la ngay wax lu war a ñu ànd

waaye kii nag sëriñ bi dafa sagar ak kooku foofu dafa dafa wér dañ ko war a fekk nag koo xam ne dañ ko war a faj nga koy toppatoo loolu yàlla dara ko gàtt adduna bi ci gën a jël sëriñ Tuubaa li nga xam ne mooy suba ci at lépp dégg ngeen li mu wax ne moo ko bàyyi ci àdduna alxuraan ak wax yoon sunna sëriñ bi sallallahu alayhi wasallam ak jëriñ bi ñu fi la war alxuraan karim wa ahadithu nabi sallallahu alayhi wasallam wa sunnatahu wa naf'u an-nas wa naf'u al-wara ma ma bintu fi dunya lay waxee

defal na ko àdduna bi defal na ko diine bi defal na ko réew mi lépp njëriñ loolu sëñ Cheikh Cheikh Sidi wax na ko ne ko tënk sëriñ Touba am am na ay ah boo koy wax te gaawoo léegi ñu dóoru mooy ñaari ayib sax la am boo ña ayib bi mooy jaamu yàlla ak jëriñ bi dee waaw ah, mu ne boo koy ñaamal ayib bi de mooy boobu alhamdulilah wa maa ayibuhu illa ibadatu rabbihi wa nafxalu wala fi subhi wa masaay waxee na xaraat yi ñu wax ne eh, al mar al mar bi ma yushbihu dam tamit da ngay tagg nit ki waaye da nga koy da nga koy xàll wa naf yi naf yi isbaat waaw maanaam léegi wa maa wa illaa da ngay wax ne sëñ Tuubaa de am na ayib ñaari ayib sax am ne ah daawalee léegi mbir mi bëgg na de daanaka ñaari ayib mooy jaamu yàlla ak jëriñ bindee fi ci ayib subaam ak i ngoon ci ayib subaam ak i ngoon te eh. noo ko waxee jëriñ murit bi waxul jëriñ jullit yi waxul jëriñ ak njabootam al waraa la wax waaw yàlla bind al waraa ku yàlla wax kon dana ko yàlla fay jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba yaram nag maam Cheikh Ibra Fall te cee bokk nag ndax sunu maam la te kilifa la dama war a yokk te nee nañ ma suñoo wax ne ma suñoo fekk Serigne bi taxaw taw nag cee bëri Ibra Fall cee bëri Ibra Fall cee bëri Ibra Fall Ibra Fall gërëm naa Ibra Fall gërëm naa day fas suñ mbàkk bu su agsi suñ mbàkk bu su xam ngeen ni rek Serigne bi bokk am na ci ñaari yooyu yëpp di taalibeem suñu jar ko defal ko lépp di borom xam xam suñu mbàkk yi nag tekki ba sëñ bi dal mu ne ko ah loolu ngeen fekk ngeen koy seedeel bu baax kooku di duñ mënoon xam def am loolu ndax ñu am mu ne leen damaa teg fa ma yàlla teg damaa teg fa ma yàlla teg damaa teg fa ma yàlla teg xam nag fu yàlla teg suñu tubaab bu nag nan ko fàtte kooku beneen mbir yàlla nañ ko yàlla fayal ak yow daal waaye yàlla nañ ko fekkaat yi bari lool yàlla na fekkaat bi yëpp rek di ko sëñ bi rek di am soxna muy góor ñi mu jigéen ñi ñëpp rek yàlla yàlla ñaar yi ñu bëgg soxna ñu bëgg borom kër ñu bëgg tukki ñu barkeel ñu am njaboot yàlla yàlla barkeel lépp amiin amiin yal nañu yàlla boole. yal nañu yàlla boole yal nañu yàlla boole. jërëjëf jërëjëf loolu kon nag loolu lépp ñëw na yàlla ndax sëñ Tuubaa nee na yàlla moom li muy la koy def rek kon yàlla lu mu wax suñu fajum aajo mu nekk ak aajo yu biir ak aajo yu bitti aajo ju mu mën a doon rek yaa man mata taqul li amrin kun yakun xaatib qadaa ajati di la di ko amiin yàlla wax suñu at yëpp faj ci barke borom Touba yàlla def jàmm mi xéewal def ci dal te coow yi bëgg ñëw yëpp yàlla jàllale ko jàmm te xam ne réew ñoo ko bokk ñun ñëpp mënuñu ko séddoo mënuñu ko séddale da ko si ab laan mbàkk mbaax ma daal waxee rek kenn mënu ko jël bàyyi sa borom kon nañu rafetal jàpp bi ñu rafetal doxalin bi ndax ndax itam si dénk leen ma ma saytul leen jurul waxante lu ñaaw réew mi kenn moomu réewum yàlla fi nekk ak cër boo fi mën a yor dund nga lu yàgg yoroon cër bi te boo toogee jur ko doo ko yor donc li ko yor période période bu képp la bu gàtt rafetal ko te it mayu ñu la koy jaayu ñu la ko sarafa ñu la ko ko dañ te am na ñu ko dénkoon barki dem kenn du ko tuddee boo toogee suuf dana kenn yor kon diggante san ko yor tuuti maa ngi koy wax sànq ko ko ku wax rek da ngay jëf waxal lu baax te yéene baax te def lu baax ndax koo sa mbokk la mbaa muy sa mbokk mbokk wala muy sa xarit wala muy sa xarit xarit kon lu xaju ne ñu nee na si ñu ngi def daal wax ne na nga seet dal ga ndax lu mu yëngu-yëngu rek ma sa dal te mu ne lu la romb xel wa neex xam ngeen xel yëpp xam nañu xel mooy mooy allure bi mu ne lu la yomb xel wa neex rek ba mu jógee yàggul ba fa mu jëm soriwul ndax ay xel moom gëmul jële kon bu kenn xeeb xeeb rek dañu dañu rafetal te te te te xam ne daal wasalaamaaleykum macha allah yàlla nga fi yàgg Mbàkke yàlla nga fi yàgg nee leen may leen juróom ñaari doomi am na laa soxla te bi nga jàngal moom ci nekk saw yow. waaw sëñ Mamour ak kii ana ah, ana ah, ah, ci doon jàngal alxuraan léegi. sëñ Mamour ak keneen ku man rek. juróom nga tëj ci cat. musal ci cat. gis nga cat. am na loo xam ne bu xasee jóg jëm si yow kenn mënu ko xam. yàlla ci yàlla musal. musal ko ci musal ci bépp ak taal yi yëpp. wa in yakkala alladina kafaru yasmu'u min absarihim lamma sami'u dhikrahu yaqulu innahu la wa ma huwa ala وما هو علاتكم وما هو علاتكم فلما دخلوا من حيث أمركم يقولون رشيدا لا حاجة لهم قدها قدها قدها قدها ولا صدق من شر ما ومن شر خاشق إذا وقع ومن شر إن فاز به ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة minal dina minal dina wala yàlla ñu ko def yàlla ñu ko def teel a ngi def yàlla bu kenn mën yàlla ñu yàlla sàmm aar ñu aar la aar ñu sàmmee as aar asamaan ak suuf yàlla ma sàmmee aar ñu ci barke ak sa rasul allahumma salli ala sayyidina yàlla ci barke bismillah rahman alhamdulillah jërëjëf sëñ Tuubaa mbokk ci mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baal wàq di leen baal tey jéggul ci fànn yëpp yin yëpp ak liñ yëgu ñaanal sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke Xaadim Rasuul mu yàgg fi loolu te ànd wér di ko ñaanal sëñ Moodu eh, sëñ Moussa Ba ñoon defaal mu yàgg fi loolu te ànd wér jabar Sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Rafal di tatagal gaay bu baax di sant suñu borom eh, ci may bi ñu may ñu fekkee onzième édition journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Sëriñ Tuubaa eh, di sant ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci liggéey bi ba ba maanaam soofantaluñ ko bañ toll ci édition bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy onzième édition bi dañuy sant sëñ Modou Mame Mbacke Fall mi nga xamante ni moom mooy initier affaire bi euh, ba pare ànd koog ñun di ci sant daara yi euh, lu mel ni murid ñi nga xamante ni dañoo jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar di leen tatagal te xam naa wax ji du ko baree na dañuy ñaan suñu borom may ñu fekk ay ati ati at. barke borom Tuubaa te saa su ne rek mooy li may wax rek day day gàccal génn kon jërëjëf sur Salam Vision.